di wax ni euh, ku nekk si ñun boor boo mënoon féete fa nga féete woon kenn joxula nga lekk kenn joxu nga naan cofeel rek nga amoon foofu donc képp wante nag ah bu yàlla defee ku bokk ci yow ñëw ni ah lii nit ñi bëgg may itam dama ko bëgg ah foofa nag ca dëgg-dëgg lu ma mënoon a teewal kële te bokkuma ak moom dara te joxuma dara defaluma dara ah ca dëgg-dëgg nag ma wëlbatu nag jàppale sama mbokk man noonu laa gisee mbir yi ba tax na damay wax xale yi sët yi li ñu fi wax ci suba ngeen boole ci mbir mi panel bi nga xam ne bi créé ngeen ko <clears throat> ngeen boole ci waxtaan wi fësal ko ci ñépp te mu bañ a nekk ay waxi kese ndaxte nag waxu kese defarul réew déedéet da ngay jëf jëf nag moo di nii dem porte toog ak nit ñi waxtaan ak nit ñi saafoonte ak nit ñi wax leen ni lii laa bëgg su ma ci jotee dinaa def lii ak lii ak lii ak lii ci kàttanu yàlla waaw ci kàttanu yàlla allah boobu dafa am solo ndaxte la nga lee boo ko waxee nit ñi te amul képp ku di jullit du la mere parce que day incha allah boobu la yàlla moo ko moo ko dogalul moo tax amul loolu itam ñu bàyyi ci xel dama wax ni ñi fi nekk ci réew mi yëpp di wut fu nekk ñu dugg fa ñun joxuñu ñu lekk joxuñu ñu naan cofeel rek la am ci ñoom wante nag cofeel googu ñu amoon ci ñoom dama koy répété ñu ñëw ci nii ki nga xam ni kii dafa bokk yow ni nag lii ñii bëgg man moom laa bëgg bon léegi cofeel ga dafa war a changer de bord man noonu laa ko gis dafa war a changer de bord su ko defee nga jàppale sa mbokk bul même nit ki dafay def te li muy def jëmale ko ko ci boppam parce que ñun xam nañ ko waaw ñun xam nañu ni jëmale ko ci boppam loolu moom lu ñu wér la ñaata salaatu ala nabi la def moom mii yaakaar naa ni fa mu ko bàyyi woon la ñu bindoon lim bañ doon def lu mu am ci foofu la ko jëlee waaw wax naa ko ba ma fay dem ngir sama sët la mu wax ma ko ma ña dem ca kër ga ca këram fekk fa mbooloo dama leen ni man dey salaatu ala nabi dina moom lay jëfe dinaa koy def am na lim bu ma ci daan def wande boobu ba léegi yaakaar naa ni bu matul fukki at yi léegi mu mat ko bis bu yàlla sàkk dinaa def dix mille fois salaatu ala nabi dix mille fois loolu itam indil ma wallahi sama poche yàlla dimbali na ma ba nga xam ne bii wooye fatul wallahi wooye te fa ma dëkk itam sama waa kër ñi ngi fii dañuy ñëw di ma seet si di di seen soxla ah gannaaw ñun ñëpp ay jullit lañu te bu ab jullit déedéet du ma wax tudd sax jullit ab jaam nga xam ni kii jaamab yàlla la yàlla moo ko bind kese xamuloo ko xamula wande ñëw na ci yow wax la ni dama soxla dara boo ko yoree boo ko joxul bu la wonee gannaaw sa xel yedd la lii de lii kii doon wut si am naa ko te joxuma ko lu tax joxuma ko sama njulit matatul njulit gi matatul yàlla dimbali ñu be bu ñu fajee soxla kooka bu demee bu ñu dellusee ñu gis si sunu téléphone am kuñ ni yónnee naa la cinquante mille francs wala yónnee naa la vingt cinq mille francs te ñun la ñu joxe woon daanaka mutul dix mille francs wallahi loolu mu am ah, man loolu lay dund fi ñu toll ba nag dama koy gërëm ci salaatu ala nabi boobu nga xam ne bii lim yooyu mu doon def këram ma ñëw fa ma itam yàlla dimbali ma itam lim ba ma daan def muy yokk di yokk ba mu mën def dix mille chaque jour wér na ni chaque jour ma def ko dix mille fois chaque jour wallahi ah te loolu grâce à lui moom itam loolu mu doon def moo ko indil lii mu nekk yàlla di ko yombalal ay mbiram ci bëgg gu mu bëgg rasulullah sallallahu alayhi am lu mu la dénk keroog bi ma taxawee ak le ministre Alioune Sarr dama ko ni la politique ne se matérialise pas la politique elle se justifie La politique, c'est un programme. La politique, ce sont des idées. Euh, Monument. yow foo dëkk ma ne ko ndànd laa dëkk je suis un encadreur personne ressource à l'école Mabassa Fall li sama frère wax nag ni mbay ci sa wewu tànk dëkk bii loo fi amul loo fi amul ci yow la man notable laa ci dëkk bi on me respecte ci dëkk bi ñee toog mën nañ ko firnde kële mooy chef de village Ndiakhate Bouye kii Loyenne la dëkk c'est un notable fii dëkk boo fi wër kër goo dugg boo ne Youssou Ba danaan la Youssou Ba école ma Mabasal fii bu soobee yàlla yonent ba man ak sama xam-xam ak sama mën-mën parce que dan ni la conscience puise dans la mémoire et la mémoire puise dans la cervelle et la cervelle puise dans l'instinct te instinct mooy doomu aadama dama ni gis nga devant les ministres devant les ministres di gënuñu maa dégg tubaab dàquñu maa wax gënuñu maa xam luy wax dëkk bii nag fas naa yéene jàppale la parce que surtout Amadou Ba nga tamay sëriñ Ndiaye loolu rek laa doon wax wasalaam. yow ñëpp la bëgg amul ku la bañ ku ni dama laa bañ. day wax lu ko neex rek ndax yaru nga am nga teggin respecté nga nit. Euh, tey bu la neexoon doo politique ndax yàlla taral na la barki Serigne Touba te fit wi nga xam ne nii am nga ko yow man maay topp sa ginnaaw dolli ko barki Serigne Touba parce que xam naa ni euh, ku la poussé nga dem tey bu ko neexoon du politique bu ko neexoon du politique cheikh bi boo ñëwee këram mu xam ni mbokk nga day jóg ci mbooloo mi ñëw fekk si la. man loolu laa ko nawee booy dem mu gunge la bu yëkkatee alalam jox la fii lépp lu ñu def ci kër gi xanaa mu bañ ko yëg mais su ko yëgee ba bërki démb bi ñuy wax affaire organisation gàmmu gi lim ci joxe sax rus naa taxaw di ko wax ndax bëri te pourtant bu ko neexoon mu ni nekku fii yàlla nag moo la jiital jiitaloo sa bopp ndax yàlla mooy xool kër xool ka ca gën a ndaw mu teg ko lam koy teg yàlla moo la jiital te doo nitu neen barki sañ Tuubaa Mbàkke doon nitu neen de maa la man sa baay laa te ñàkkuma fayda li tax ma bëgg la sa jom sa fulla ak sa yar la tey soo meloon neneen quatre-vingt-dix laa lay rombee ndax man it yàlla teral na ma mais nit ku baax a ngi nii nit ku bëgg mbokkam a ngi nii bala ngaa laax jaay laax lekk yàlla moo ko teg fii tegu fi boppam te surtout Amadou Ba nga sama yaay jii ci biir daf ma naan cheikh bi daal su ma gisee day mel ni sama papa laa gis benn lañ kon yàlla na la yàlla suturaal fi nga jublu yàlla na ko yàlla leeralal ba mu leer naññ ni bidéew ni gileem sute ci biir bay yàlla nga ko sute sa biir morom ci barke Seydina Mohamed barke ka Khadim vraiment teeru gi ngeen teeru le président Cheikh Alassane am na solo moo tax li góor gi suñu baay bi wax am na solo léegi nag nanu ko déglu attentivement loolu mooy li am solo samil ali min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa afdalu salaati wa atammu taslim ala seydina wa mawlana wa habibana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi ginnaaw bu ñu sante yàlla des di ko sant di julli si yonent bu tedd bi moom Aba Zahra moom rahimahullahu rahmatan waasia wa salawatullahi alayhi wa sallam moom mi yàlla wax ci alquranu karim wa taxcha alayhi wa sallam mi yàlla wooyee ci alquran xaamim wax ko kaaf xaa yaa ayn wooye ko yaasin ñi ngi des di julli si moom sallallahu alayhi wa di nuyu nag bu baax sunu waajur sunu maam bu tedd muy imam alaaji Njóoba Ba moom ak sama waajur defe naa li ñu màggante bariwul waaye sama waajur wu góor jox na ko ba mu mat sëkk tëru cëru nijaay bi mu doon ci moom te képp ku nekkit ci famille Amadou Ba Cheikh Ahmadou Ba yaa ngi jox cër gu mat sëkk di la ko xoolee yow maam imaam Alaaji Njóoba Ba xanaa di ñaan yàlla mu yàggal sa taxawaay mu defal la wér nga yàgg gunge ñu ci mission bi lalu ci sa ndodd jaaroon ci Alaaji Mamadou Ba jaaroon ci Alaaji Babacar Ba jaaroon ci Alaaji Alassane Ba di jaar ci jaar di jaar ba egsi ci sa loxo yal na yàlla sàmmal la ko ci yow la ñëpp war a jàngee yaru si yow la ñëpp war a jàngee dal si yow la ñëpp war a jàngee muñ te loolu yëpp ay jikko la yoo làmboo bi ma ñëwee waxtaan ak moom benn kàddu rek la ma wax ne ma amatuma choix bi ma waxee loole laa xam ne yóbbaale na njaboot gi yëpp projet de société bii nag ma yëkkati su si famille bi jàppee sant naa leen suñ ci jàppul bis bu ñu amee ndam ma yóbbaale ñëpp it ma bàyyi kenn kenn ci famille bi parce que pour man léegi rek cordonateur national wax na ko dafa mel ni benn mission wala benn héritage bu jékki-jékki rek ñu jox ma ko ci wàllu utal réew bi ma ci jubloo ak léegi ñoom ñi ma àndal mën nañu seede ne mbir mi léegi jéggi na dayoo ci wàllu ay nit ñu ñu fekk si fu ne ci réew mi waaye ñëwoon nag waxtaan ak yow su fekkoon yow rek yaa toog sax doy na ndax fii benn kàddu moo fi am mooy sa kàddu keneen ku fi am kàddu bëgg ko doxal ci kër gi du dox parce que ñun ñëpp benn kàddu lañuy déglu mooy kàddu Cheikh Ahmadou Ba te Cheikh Ahmadou Ba mooy imaam alaaji Njóoba Ba mi toog nii te loolu mooy dëgg moo tax ñuy ñaan nga yàgg projet bi nag li ci ëpp solo mooy li ma naral jigéen ñi ci réew mi mu jiitu ma ne jigéen dina amaat wurus ci réew mi loolu laa wax fi ma dem yépp te ma saytu ko xoolaat ko bu baax moo tax ma initier la banque des femmes bi ma bëgg proposer sénégalaises yi cinq cent quatre-vingts milliards de francs CFA lañ ci nar a dugal mu bàyyi ko ci le waqf le fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde deux mille milliards de dollars mooy tourner autour de ce fonds te ñi nga xamante ne ñoo jiite fonds boobu ñett ñiy décider maa leen yilif ma wax loolu ci sama kër maam ma ne ñett ñi jiite fonds boobu maa leen yilif ca Abu Dhabi yàlla dëgg la bëgg quatre cent nit ñu weex lañu yàlla def ma jiite leen pour ñuy xalaat naka la àdduna war a doxee sur le plan économique loolu du caaxat te ma yéene ko nag sama réew yéene mbir yi soppeeku ci réew mi moo tax ma samp sama ndëdd di wuti présidentielle bi en deux mille vingt-quatre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 tuliju leyla fi nahaar wa tuliju nahaara fi leyl wa toxriju lxaya min al mayt wa toxriju l mayta min al xay wa tarzuqu man tasha bi xayri xisaab moo tax nga dégg la ca kaw te yonent bi loo ko jagleel ndekete yoo bi mu bëggee ñu dugg ci lii daf ñu njëkk waajal ne ñu dem leen ngeen julli si yonent bi ay lim ñu def ko yóbbaale ñëpp tey jii ñu présente ce grand projet de société may ñaan nag famille bi kenn ku ne foo nekk même soo ci àndul nga ñaanal ñu yàlla yàlla sàmm ñu yàlla aar ñu ba ñu mottali suñu yéene ci suñu réew El wax na ko léegi nee na bé béy sa wewu tànk sama maam it wax léegi nekk de xëy na am na ñu nekkoon feneen waaye de su njaboot soxlaa ñëpp ñàkk maa ngi nag di la ñaan maam nga xoolal ma fépp fa ma yebal ci kër famille bi danaa sol sama dàll dem individuellement dem seeti leen pour waxtaan ak ñoom sensibiliser leen que lii ma yëkkati jëme ko ci réew mi maa ngi ko def ak xel def ko ak xalaat def ko ak soppi sama réew mun naa ci jukki benn jukki mooy TGV bi ma bëgg lal diggante Saint-Louis parce que dama bëgg dekkil Saint-Louis ak Ziguinchor nga xam ne TGV bi esprit Baye Fall laa bëgg ñu liggéeyee ko waxuma dañuy utiliser Baye Fall yi mais seen xalaat laa bëgg ñu jaaree ko pour tabax TGV bi état du ci dugal dara ci xaalis ñaari mbir moo nar a financer TGV bi benn bi mooy le musée virtuel de Cheikhul Khadim à Touba ñu nar ko samp deux cent millions de dollars la ci vingt quatre heures beneen bi mooy la grande conférence internationale virtuelle de Cheikh al Islam quatre cent millions de dollars la en vingt quatre heures ma fexe organiser benn planning financier bi ci jiitu mooy samp à Touba Murid Global Finance ba ca topp mooy samp beneen pôle financier à Medina Baye ma tuddee ko Alfayda Finance li ma ci jublu mooy génnee pauvreté ci ñaari gox yooyu yemuma foofu nag dafa am lu ma bind benn soft power pour ñu dégg anglais tuuti mooy naka lañuy jaaye image yu senegal amul benn dëkk ville religieuse tàmbalee Tiwaawoon dem Njaasaan dem ba dem Medina Baye dem Fidaaka ba nekk ca Medina Gunaas dem Touba benn bu ne jagleel nañ la benn bunt boo xamante ne bokk na ci bunt yi dàq ci monde bi sooy dugg ci ci dëkk ba te cinquante quatre jours lañ koy liggéey loolu pour taxawal li bees li ñu bëgg def ci réew mi beneen bi mooy suppression mairie de Dakar ndax batiment ba la ñu nar a def la banque des femmes ak département bu am solo bu ñu tuddee allo Soxna May moo nar a changer condition jigéen ñëpp ci réew mi cinq cent quatre-vingts milliards laa wax te loolu dañ koy réaliser si un an pour que jigéen ñi comprendre ko ba ca topp mooy day jël en charge jigéen su xasee ba wasin ba doom ji am bac ba dem université responsabilité société bi dañ ko dugal ba nga xamante ne benn jigéen ak doomam duñu amati jafe-jafe ci réew mi te li may wax lu gan du gan ci àdduna bi France gee di ko def mi ngi fëgg suñu bunt pour am ci pétrole bi ak gaz bi Dubaay géey ñu koy defee amatuñu petrol amuñu gaz te dëkk ba tey jii amul benn sénégalais bu fi nekk te rêvé wuloo dem Dubaay te yaa 30 ans la woon aéroport Léopold Sédar Senghor moo daxoon fuuf aéroport Dubaay yaa 20 ans ci ginnaaw tey jii aéroport Dubaay bokk na ci aéroport yi gën a rafet ci àdduna bi li ko waral nag mooy ñi ñu jiite ba léegi dañoo yeewoogul ci xam naka la àdduna war a doxee et c'est capital maa ngi sant ñëpp nag maam di la présenté ñi ma àndal mooy la coalition jàmmi réew mi ndax pour ñun benn ndaw warul dee ci réew mi fii ba élection yi di ñëw dara gënul metti bàyyi sax mën naa muñ mais yaay ju jur doomam nàmpal ko yar ko mu màgg xale bi toll ci 18 ans rebelle wu ci kër yaayam rebelle wu jàppee yaayam ak baayam morom di xool kan moo mën a wax ci mbedd bi lu mun a tax mu def révolution am te révolution bi dara jaggu ci su ko defee lenn rek la koy jural mooy réer wala leneen li mu ko nar jural mooy mu génn àdduna yaay ja dese naxar loolu laa wax ne bokk na ci combat yi may mën a jamono ji di sensibiliser ndaw ñi ñu xam li leen war jamono ji mooy taxawu seeni yaay en particulier changer seeni condition de vie man def naa treize mois prison te defuma dara treize mois bi ñu saagaa gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam ma nekk ci kaso bi bind fa ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam quatre mille pages ci treize mois yi bi ma génnee ma ne jéggale naa néeg ba ma nekkoon ak a ndaw ba pare mu am paranteeru sarale su guddi jotee nawet wànq yi fa la ñuy jaar pour dem géej dangay rey ba sonn nga nekk ci condition boobu ñu tere la doxantu treize mois aw ma droit dem ci cour bi ñuy doxantoo sama maam fekk na ma fa waaye nit musuma faa fekk ba génn dem waxanteeg samay waajur ne nañu def SOS d'urgence pour que suñu doom ji génn fa ndax am naa fa comportement bu exemplaire ci biir kaso bi kenn du ko weddi musuma ñaan parce que une semaine laa fa def maa ngi wax ci tele télé Macky Sall yónnee ma nit pour wax ne naa bind lettre balu rek dem ma wax ne tooñu ma benn tubaab dafa wane ne qui s'excuse s'accuse tooñu ma woon ba ca topp ma wax ne suñu saagaatee yoleen bi alayhi salaatu wasalaam moo amaat comportement bi man tam danaa danaa jooyaat parce que ñun amuñu ko gën gën gi mindeef marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma laa la yabxiyaan moom la yàlla wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam te bispenc nag lañuy xam dëgg-dëgg ki ñu bëgg nii sopp ko muy gën gi mindeef njëriñam njëriñam bispenc ci yërmande taxta arshu la ko yàlla wax moom rek la ko wax waxu ko keneen ñëwal nga foon sama toogaay bi sama fauteuil bu mag bi yaa muhammad wasal tuxta ramul moom rek moo féetewoo loolu moom gën gi mbindeef te yamul foofu biir suuf kenn rek la ñu yaakaar muy yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal ko sax ak suuf yëpp nekk ay taalibeem moom gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam الآل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين سبحان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين آمين Président